jërë ngeen jëf koppar yi ñu natal réew mi ngir mu war koo doxe déwén di loi des finances initiale 2022 anki di nekay nee nañu bit sa la bopp fe am bit sa record la ko journal bi tuddee nee nañu ñi ngi ko xayma ci juróomi junniy milliards ak téeméer ak juróom fukk bit sa la bu ñaxte bit sa 2011 bi ca koppar anki di nekay nañu amna na ci téeméeri milliards ak juróom fukk yu ñu jagleel programme d'urgence emploi des jeunes am na ca fanweeri milliards ak juróom yu ñu fas ci bourse de sécurité familiale am ñaar fukki milliards yu teg téeméeri millions yu ñu war a jagleel couverture maladie universelle lëkku daje nañu yëf di budget ba romb na junni milliards léegi ko ne ko mi ngi toll ci juróomi junni milliards ak téeméer ak juróom benn fukk la koppar yi ak ni ñu leen fas yéene tërale l'observateur tojal nañu ko ba dañuy wax it ci taux de croissance bu fa la bëgg a yegg le témoigne nañu budget la bopp ku ko dégg xinni ko ndax ba Sénégal amee indépendance ak léegi ñoo ngi soog a dégg ci réew mi budget bu nu toll Vox Populi nañu président Macky mi ko natt ñi mu junniy juróom fukk ci la natt projet de budget bi démb ci la ko adopté ca ndajam conseil des ministres mbir meneen mu jib ci ndajam conseil des ministres bi woon démb Sud Quotidien nee nañu ñoo di tabax yi daanu ci réew mi dëkkee jur ay jëye ak i ay bakkan ci rot yéenekaay bi nañu njiit réew mi Macky Sall wax na ca ba digle ca ñu gën a taxaw ci dëkkee saytu anam yi ñuy tabaxee taax yi le mandat mel ni ko ndax wax ji dina safe est am na njariñ est a régler moom candidat Macky Sall ci élection locale yu suur soi mi ngi ñuy wax ne bu njum ci la bokk ndax waa ji di Navel Thiam membre fondateur APR ca njum mi ngi ci tànki Cheikh Omar Anne Navel Thiam nee na candidat la ca mairie bu njum ci élection locale yi ñu jëm lu jëm ci élection locale yooyee ba tey nañu dem ci Vox Populi fekki fa beneen candidat bu yëglu ca mairie bu Pire mu di Mamadou Ndoye Bane journal bi bindal ñu ci xët njëkk ne ma seen mbër ngir mu di honneur bopp mënu ko woon a bañ mu ne am na yaakaar ci ne sëriñ bopp dégg na li waa wax dégg na it bëgg-bëggu pur ba tax dina ñëw ànd ak man jàpp ci sama candidature bi wax na it ne moom ndoy baan kii di Diop si la gën a jege gox beneen di commune bu Médina Les Échos mi ngi ñuy xibaar ne kii di Bamba Fall moom la waa coalition Yewwi Askan Wi tànn def ko seen point focal moom la ñu def it seen candidat ca mairie bu Médina Source A mi ngi ñuy nittali ci njëkk mbir mu yéeme mu am ca Touba bi benn waay bu màggali woon moo dem ci jaaykatu garab maanaam ab tradipraticien jënd fa sirop bu ñu ñu ne ko day dooli ngóora di produit aphrodisiaque ba mu ci jëlee benn kudd ca la tàmbalee wàccu deret ba jaare ca faatu bi waa police demee jàppi ji waa ji ko jaayoon produit bi la waaje wax waa police moo di man garab gi jaay rekk laa ci am li ñu libération nañu moo am ca wakaam it dara gënu koo yéeme Abdoul Wahab Diop benn waay la bu cartouché ca faculté médecine bu université Cheikh Anta bu Ndakaaru dem ubbi ab clinique am ca wakaam tudde boppam docteur ko ndaw sa doxe ca paralysé dem porté ko plainte ca lañ ko jàppee l'observateur mel ne ku naan ñu ko kookee gis nañu ku ko gën a dee fopp yëral xët mu njëkk yéenekaay bi ca Tambacounda la waa police jàpp benn dealer mënatu ko di ko yóbbu waa ji di dealer bi daw tàbbi ci teen bu fa nekkoon ba noppi naan gaay may leen ma cigarette